mbokk internet yi ñu ngi leen di bu baax di leen wax ngeen dal jàmm sur Sport 221. liñ fësal ci xibaar mooy que Real de bëgguñu gis benn yoon Victor Osimhen bu fekkee dafay quitté Napoli mu ci Arabie Saoudi xam ngeen club saoudien yi fare woon nañ pour fay koppar yu takku waaye Real dinañ def ay nas ay pexe xool ba xam nañ ko dalalee ñu boole ak Vinicius Junior te Rodrygo buñ soxandikoo ci deeli mel. Moustapha Dramé bi nga ne moo dàqoon dugal championnat gambien boobee avec 20 buts kon utile na ci AS Pikine de même que Pape Ndiaga Djigal Teungueth FC abale nag les Pikinois que Guédiawaye FC dalal nag ki dàq dugal ci championnat bi ngeen bi mooy ancien joueur Casablanca mooy Abdoulaye Gassama avec 12 12 réalisations Anthony tàmbali war nay tàggatoo ak waa Manchester United club boobee nag. nee na dinañ bàyyi yoon def mu liggéey waaye dinañ ko may mu amalay tàggatoom Tebas bi nga ne moom moo jiite kuréel benn mooy liggéey mu ne nag wàllum guerre nekkul joxe xaalis rek waaye yéene bi sax boo ko defee mën nañ ci topp voilà Barça nag day garuwale xam ngeen fi muy waxee football kat aussi sénis bi naan Alexis bekka Beka moom kat daa bëggoon xaru ndax li ko waral mooy que dafa taqali ko ak corom voilà déception amoureuse lañ fësal waaye kat loolee mujjul am li Lisandro Martinez kon moom dina toogaat diir laata mu ñëwaat ci jëwante gi ndax ga fa amee gaañu gaañu. Neymar dugalugul benn bi club am benn mooy El Hilal waaye nag moom amal na passe décisive ci bii bu Kalidou Koulibaly bi xam ne def na ko ek sax boobee mooy bii bu njëkk pour l'international sénégalais bi son centre bien exécuté par le brésilien mu ne nag ay coéquipiers kat ñoo ko wax mu ne voilà il fallait que mu dugal tey ek loolee. loolee Antonio kon mu ngi sant borom bi bu baax a baax pour rappel ñoo doon club bu ñoo daan club bu Al Sabab Dabib Diallo ñaari bal dara ka nga xam ne moo dugal ñaareelu bii bi jàpp leen ko bu baax mooy Mitrovic changé zone bu flamme bi kat mi ngi wane boppam et que si bi en plus une passe décisive ci juróom-benn machine yi mu jëwante ak Al ñu delluwaat ci Real de Madrid bu sukkandikoo ci Marca ñoom kat voilà ñoom ñoom souhaité wuñu jënd numéro 9 ci mercato bi. dañ doon nag sakkanal di économiser bu ko defee xaalis boobee mën leen may ñu amal benn signature bu mag a mag pour atum 2024. BeIN Sport tàmbali na joŋante diviser li ngeen mooy championnat. Eh, portugais bi ci noonee kat choc bi am doon dox ci diggante Benfica ak eh, Porto ñoom kat eh, ta teg nañ ko ci noonee jàppaleen di Maria mooy may club ba mbir mooy Benfica ndam gi nag bam lakkee jaax yi 1 but kon loolee moo leen may ñu jël provisoirement tête du championnat foofee ca Portugal Real de Madrid dina di joŋante sans Alaba face au Girona ak Napoli ndax kat dafa amee gaañu gaañu. JC Lingard bi nga xam ne amul woon club waaye nag am na chance kat bu wane boppam ci club booy safaan Gérard Berner mooy Al Ettifaq kon may nañ ko un nag bu fekkee kat li ñuy séntu ci moom matale na ko bu baax a baax dina signé contrat pro foofee ci championnat saoudien bi. Luis Enrique xam ngeen ne voilà mooy chance temps de jeu kenn mooy Cheikh mbër bi am xam jëlee nekk ca Benfica mu ne benn jël bi am na benn potentiel bu mag a mag. voilà nag dina dina ñëw dina ñëw mooy que dina ko may temps de jeu ndax saison bi la ci des bëri na lool kon am na capacité bi nga xam ne voilà mën na ko may mu wu fa fay ci club de la capitale pour rappel boole ñu ko ci ñi nga xam ñoo war a joonte yi ci champions league bi boo noppee Ismaïla Sarr dina ñëwaat ci joonte yi moom mi nga xam ne dafa amoon gaañu gaañ ji au regroupement ci chose Zambie yi. kon bu soxandikoo ci équipe kon seen déplacement bi ñu war amal contre Monaco samedi à partir 19h GMT moom dina ko teewee pour rappel moom mi nga xam ne bu général su foot bi amal na deux buts ak ñaari passes décisives Sergio Ramos mu dugal contre son camp voilà bi mooy troisième bi contre son camp en Liga et que def na ñaari yoon nag Séville ak waa Real de Madrid et que contre Barça yéene mooy mu dugal waaye malheureusement ci ay camp lay mujjee kon loolee mooy may Blaugrana ndam. ki nga xam ne am na ndam club am mooy Nampalys Mendy moom bi am depuis que ba ñëwee ay résultats yi positif nag la am ak club am mooy Lens ñooy mujj daan Strasbourg ñu titularisé que 1 but à 0 waaye dafa cédé place am à la 66e minute depuis son arrivée moom mi mooy l'international sénégalais bi voilà trois matchs benn match nul Ligue des champions contre ce pays. ñaari ndam ci Ligue 1 bi actuellement ñi ci treizième toog bi kon ñoom kat ñi ngi ñëw ginnaaw gi début saison bu a bawoo ko defee kat ñu may ko autorisation mu mën a doxal club bam bi nga xam ne moom mooy Kivili Ruwen kon loolee Antonio Zoor formé foofee ci FC Midjour kon kat am a déplacement samedi contre Dunkerque ce samedi à partir de 17h GMT Abdoulaye Khad Diallo coéquipier am nañ seen ndam bu njëkk foofee ci Qatar waaye nag da il a fallu attendre à la cinquième journée voilà ñu daan 1 but à 0 mu benn une prestation solide comme à son à son habitude sure rek waaye vraiment benn défenseur bi nga xam ne xarañte fam kenn du ko lam-laame Cristiano Ronaldo aussi kenn demul bu des club ba mbir mooy al na suñu am ndam moom mu dugal jox ñu dugal kon sept match yi mu joué 10 5 ma 5 passes décisives vraiment la kenn tipp Ballon d'Or mi ngi wane boppam en Arabie Saoudite Thiago Alcantara mu ne nag bëggul benn yoon football moderne ndaxkat moom musul d'accord ci wàllum VAR ndaxkat football mën naa nekk neexal kat VAR mën na lu ko yàq lu ci bëri la ci xalaatam et que bi ngeen xeebul benn jour ñoom ñu ngi bàyyi xel bu baax a baax situation bu Anthony Martial ca Manchester United bu ñu soxandikoo ci Mundo Deportivo. l'argentin Giovanni Lo sow mu ne bëggul benn yoon quitté Tottenham cet hiver li mu bëgg nag mooy que mu wone boppam et que mu réussir ci club bi ñu dëppalee les sports. et que naataangoom argentin bi mooy Papo Gomez boo leen di fàttaliku doon doxal club bu ci mel ne Atalanta de Bergame utali ci moom nag benn agent libre la kon il s'est engagé librement club benn mooy Monza ci Italie. une très mauvaise nouvelle pour les Blaugrana Rafinha dafa may gaañu gaañu kon moom kat sera forfait. ba tirab bi nga xam ne moom la ñuy jublu ak kat voilà place nag ci classico bi dara leeragu ci li nga xam ne nag moo leer ba leer mooy que kat ça dépend ci forme état de forme bi nga xam ne dina ko ñëwaat tey ci ay joganteem. et que pour yéexal savi mi ngi yëkkati ay kàddu jëmale ko ci kenn mooy Ramos mu ne Ramos benn jour bu maga a mag la joué na ak ñoom ay année yu bëri nag voilà benn moment la bu malheureux pour moom waaye nag moom moo leen may moo tax kat Barcelone yi am ndam actuellement ñooy leader provisoirement ca Liga en attendant Real ak Girona di amal seen ay jogante kon gaañu yemale foofu ay xibaar di leen jaajëfal di leen jox dig daje ba beneen yoon sur Sport 221